jërë ngeen jëf internet yi bàyyi xel MPROD TV ñu ngi la ñu nuyu di am mbégte lool jàkkaarloog yéen fii ci MPROD TV nee naa la euh, fii rek la lépp di leere waaye tamit lépp loo xam ne rek ci xibaar la ñu leen ko yéen suñuy internet euh, coow li nag bëri na waaye olof day faral di wax lu am solo maanaam euh, képp koo xam ne rek dafa am lu ñu la teg wala loo xam ne jege naak li nga xam ne moo bokk ak sa njaboot day baax nga génn indi ci ab leeral suñu yaay nag lañ toogal mu nekk waajur ci ki nga xam ne mooy Mandiaye Seck coow li bëri na ci Sénégal lool ginnaaw bi nga xamee ni ay jamono am na lu fi xewoon ñu génnaat mbir moomee neenu mu am beneen tournure bu bees waajur nag dafa for lool ginnaaw bu ñu tuddee sa doom rawatina tamit ñu tudd la ci ñàkk fay rek loo xam ne xamoo xamoo fu mu jógee suñu yaay ñu ngi la ñu nuyu bu baax a baax a baax di la masawu ci li nga xam ne jot na xew coow li bëri na lool ñu bàyyi la nga nuyu internetu MPROD TV. maa ngi leen di nuyu waa internet MPROD TV maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci ak déplacement bi ngeen déplacé wu. man sax damaa jaaxle. dëgg la dëgg la yaay maa ngi koy wax léegi samay njëlbeen wax ñu ngi lay masawu parce que waajur dafa foor rawatina ay wax yi ñàkk fay dañu tudd la tudd sa doom mm. bi nga xëyee dégg ki nga xam ne mooy influenceur boobu noonu génne ay révélation loo xam ne jotoon na fi xew eh, ci ay sos ak ay tuuma génnewaat mbir moomu mu dalaat ci ñeneen. Ah, yàlla mooy àtte rek xam nga yàlla moom buy àtte da nga naan sax lii dafa doy waar man affaire bi daf ma daf maa jëlee kaw. waaye nag même bu ma jëlee kaw tamit am na loo xam ne balaa affaire bee am dañ ma wan dañ ma wan man parce que man yàlla defal na ma loo xam ne luy ñëw ci man balaa bët set ma koy tegal kom seetu moo tax biñ ma envoyé affaire bi sama benn doom moo ma ko envoyé ne ma yaay xanaa da ngay nelaw ma ne ko noonu man aw ma téléphone mu ne ma jugal foo nekk mu ne ko maa ngi sama kër sali mu ne maa ngi ñëw sama oto foofu bi mu ñëwee la ma ko tegal ci téléphone ma déglu affaire bi gën a santaat yàlla ndaxte ma njaay su dee benn fan sax séel naa ko baayam muñ naa ko fa te man newuma rekk rek juux ci famille Marène damaa jóge sama kër maam wàcc sama kër maam ñoom samay nijaay lañu. su ma leen du ma leen saalawliku ku ma ci gis nijaay laa lay wax su ma gisee Mapenda nijaay laa koy wax su ma gisee Ablaye Naar nijaay laa koy wax su ma gisee bàjjan Xadi Seck bàjjan laa koy wax. parce que deret moo ñu boole. Mhm. mais nag man damaa dolli sant yàlla parce que man bi ma gisee affaire bi am ku ko wax ma dégg ko man dama tiit parce que ki def loolu mhm. man jiwuma ko loolu. da daan da daan ñëw kër ga soxo dama xiif ma jox ko mu lekk soxo yére foofu ma génne yére ma jox ko mu sol. moom moom waa ji ko. moom waa dama ko dama ko wóolu woon ba. dama daan dama ko daan woo sax di ko booleeg ma di ko wax ma njaay dafa naan si wut tey anamu gisuma ma ndax wóolu ko def ko frère ndax mënuma ko jur. Mhm. mais man affaire bi dafa jàpp sama bopp bi bi ñu tuddee. turu kooku. man dama daanu dama xëm dañ ma doon sotti ndox. ndax xaaruma ko woon ci moom. affaire bi biñ ko njëkkee wax ak ki ko wax xaar fu ne laa ko doon séentu. di nappatu. parce que moment boobu may saaga Mandiaye Mandiaye takkoon na jabar peut-être neexuma wala gis naa lu ma neexul ci sama doom ma koy woo mu nekk xale di ma tontu tontu xale. ma saaga ko sama xol jug xolu yaay jug ma saaga ma mais man ma njaay sama doom yëpp moo ci gën a nekk sama xarit mook magam bu góor ku jigéen ki da leen di siis ne sama yaay yéen ñaar la bëgg parce que seen beneen mag bi gaañu na may ndey faatu te kooku benn jour toog nañ ma yaay bis xaw ma dinaa dee xaw ma dinaa dund mais bis bu ma dee dinañ la sonal te lim ma doon wax te dinañ ma sonal sonal nañ ma ko man damaa daw ba dee ci sama njaboot gi damaa daw ba dee bugguma ku ma xamal dara man sama benn mag rek moom may xamal dara mooy kii ngeen ma fekk ci moom fu ma amee lu ma naqari ci moom laay ñëw daw naa sama njaboot gi yalwaan naa jox samay njaboot ñu lekk ndax suturaal samay njaboot lu ne daj naa ko ci samay njaboot ma njaay daara bu ne papaam yóbbu na ko fa mu dem jàngi man defuma kenn dara def ma dara mais bàyyi naa lépp ci loxoy sunu borom parce que man sama njaboot rek ñooy dund ah. man ak samay doom kese ñooy dund man man gisuma kenn man gisuma kenn gisuma kenn naqaru xol laa am naqaru àdduna boo xam ni dama gisoo dama jeex damay génn nit ñi naan ma depuis loolu bi ñu ko waxee ba tey bi coow li amee ba tey su ma takkee kuddu lekk duma ko du jàll. ndax sos di sos di sosal ma njaay di ma sosal di ma waxal lu ñaaw. mais lépp bàyyi naa ko sama loxoy suñu borom mais nag sama yaay bi ma jur caan si la maa ngi dolli di ko ñaanal mu gudd fan ak wér sama yaay parce que lii lépp sama yaay la parce que li dem ba dem ñu wax ko lu ñaaw ci sa ko ci sama der teg ko sama der doom ba yàlla indiwaat leeral damay sant suñu borom ak sama jur bu jigéen ba ma mujjee ci moom dama ko tàllal sama loxo jooy na ko yaay temps dama ay problème mu ne ma loo bëgg yàlla la ko suñu borom defal ndax loo am jox nga ma ko man bi may taral sama yaay boobu am ma vingt ans man bi ma yàlla weddee maag papa yi ma Ndiaye sali laa dem di liggéey ci ci hôtel yi di dem di jouer ay spectacle di def ay variété ñu di way ñu may fay mu koy dundale samay doom musuma def la bon jox ko samay doom mais nag lépp wax bàyyi naa la suñu sunu yaay mbir mi daw na yaram lool te xol yëpp a tooy ndax doom ak yaay dañoo jege lool te ñu ngi lay masaw bu baax a baax ndax suñu borom lépp lu mu def rek am na amaana lu tax lu nekk ci ginnaaw sa doom di Mandiaye nekk sa xarit wax dëgg fa neex yàlla te ku dégg lii xam ne yéen ñaar jege ngeen lool bi coow li amee mun nañ jàpp ne bokk na ci lu yàqoon carrière Mandiaye ndax ñu bari kenn déggatul sa doom boobee noonu ci coow lii nii yow bi nga dégganteeg Mandiaye ginnaaw bi nga xam ne suñu borom daa ni dafa àtte ma bi ma ko déggee dana ma yaay sa liggéey rek moo ma wallu sa liggéey suma ma wallul woon xëy na dara du leer waaye sa liggéey moo ma wallu man doom yi ma jur ma moo ci gën a yaru ak asan magam du samay doom nit ñi da naan ma ni nga safee xorom ak ni nga mel mais say doom du ñu siggi xool yi ma samay doom booy wax ak ñoom dañuy sëgg kenn amu ci salañ-salañ boo xam ne dinañ dem ñu ne kii doomu ndey soxna bii nii la mel ma njaay booy wax ak moom day sëgg man mi yaayam sax su may wax ak moom day nitu kersa day sëgg ba ma wax ba pare mu ne ma yaay ok baax na wala mu mer ne ma dinaa la booleeg sama papa ma mer saaga ko mu jeex mu dem mais man samay doom aw ma kenn problème ma njaay aw moom xaar ma yàlla sama kër mag bii fi ñu dëkkoon dakaar bi ma nee ñëwal ñu luye dama ko ne du ma luye sama kër famille laay dëkk parce que yu mel nii moo taxoon may bañ du luwe sax di dëkk man kese ñu may waxal loo xam ne nii du sama jikko man liñ may waxal du sama jikko man appel vidéo boo ma ko weesoo dama lay raccroché bu ma la xamut kon man waruñoo kooku waru sax teg ay demal teg yaayi diw pour lii ak lii pour pour jege koo xamante ne nii seen ñaari baay yi ñoo bokk ndey ak baay waaw man ñooñu ci sama xol laa leen def parce que sama nijaay leen jur samay sang lañ samay sang lañu même seen yaay xam na ne du ma tudd tur même seen yaay xam na ne man sama xol ñooñ dama leen a bëgg man damaa xeex sali ba sonn ndax ñooñu ndax samay mbokk di tudd ay tur yoo xamante ne ni di wax lu teggi newut ma xeex parce que man noonu laa mel dañ naan ndey soxna yaay ma njaay dafa pànk man su ma déggee ko wax dara sama mbokk feek jotuma ci yow duma am jàmm man loolu mooy sama jikko mais nit boo koy waxal da nga koy waxal loo xam ne jikkoom la ak lu muy def man xawma lu bon man lu ne ci man Ousmane Seck ko ci def jikkoom laa yor ni mu sadigee noonu laa sadigee samay doom ni mu leen yare noonu laa leen yare man duma tooñ kenn sama famille nag maa ngi leen di ñaan ñu ñaanal Mandiaye parce que yàq nañ carrière man mii yaayam damay am ay problème kenn dama ko fajal parce que Madiaye moo ma yoroon moo may defal lu ma bëgg moo ma koy defal. maa ngi ñaan yàlla ak sëriñ ne Sénégal ak kilifa diine yi kilifa aada yi ñu ñaanalal ma sama doom yàlla tegaat ko ci tànk yi mu nekkoon mu man maa dimbali loolu rek laay ñaan. yaay euh, coow li fu mu ne nii dafa mel ni ñu ngi naan dafa tàbbi ca loxo yi yoon parce que tamit nag yenn sos yi bi ñu ko sosee ay doomi aadama ñu dem ba tudd ci ay nit day baax nit yooyu ñoo xam ne dañ leen tuumal ñu indi leeral bu dee ñoom la ñu xam bu dee du ñoom ñu xam euh, da ngeen a commencé dem ci yoon pour porter plainte. waaw porter plainte dina am xam nga lu tax dina am. parce que ñun ñëpp ay famille lan te man bëgguma lu ñaaw ku ma xam-xam ne damaa rafet xol. du tudd kenn. mais affaire bi. dinañ dinañ ko topp ba jusqu'au bout. Hmm. man dinaa ko topp man ba jusqu'au bout du ma bàyyi. xaw ma nag ma njaay. Hmm. xaw ma papam hmm. xaw ma mais man moom sama bos. man mi ñu tooñ dinaa ko topp ba jusqu'au bout. te li na ci ginnaaw ak ñiy poussé. loolu yëpp xam naa ko te xam naa lépp. mais beneen beneen interview mi ngi ñëw bu boobaa dinañ xam ne lépp dëgg la waaw. kon mun nañ xaar loo xam ne euh, mun nañ ne nopp dalootina la ñuy wax bu bu plainte bi. jàllee bu plainte bi jàllee dinañ xam ne nopp dalootina ndax man ci dëkk bi laa dëkk. nekk doomu géwal nekk dëkk ci réew mi xam ci réew ba may sëyi maareen man man 17 ans 19 ans laa amoon. kon man lima xam bari na. waaye nag yàlla comme yàlla àtte na alhamdulilah rabil alamin yaay ñu bàyyi la nga tàggatoo te tamit di la wax rek yàlla na suñu borom def jàmm ndax jàmm rek si la lépp. waaw maa ngi tàggatoo maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sama famille di gërëm joojo sama mag di gërëm mbéy gay seen sama mag di gërëm bas di gërëm sama yaay parce que sama yaay moo moo lii sama yaay moo ko liggéey man duma doom ju ñuy tasaare ci mbedd mi. Mm-hmm. man sama ndey dama ko dama ko dama ko lu ma am sama yaay laa ko jox. moo tax takkuma or takkuma jama lu ma am sama yaay laa ko jox moo tax lii nii bi ma ko gisee damaa xëy julli sangu basit julli ñaar rakk ne alhamdulilahi rabil alamin jëfe sama yaay caan si la jërëjëfe sama yaay caan si la waa xombal maa ngi leen di nuyu di leen sargal sama yaay moo waral lii lépp moo tax lépp luñ ma mas def fa ñu def ko sama njaboot balaa bët a set mu feeñ acca mu ngi noonu internetu MPROD TV dégg ngeen suñu waajur bu jigéen bi nga xam ne mooy waajur ci Mandiaye Seck ginnaaw tuuma yi nga xam ne jotoon nañ ko teg seen i ndodd ci ay bés yàggul dara mbir mi di dox amaat beneen tournir ñoom nag nee nañ dañuy dem fi nga xam ne fi la caabi fi eh, nekk fi nga xam ne moo nekk kër buur su ko defee rek kenn ku nekk bu boobaa ñu wax kan moo tooñ ak ku doo tooñul waaye en tout cas àdduna war nañu xaar di xool bañ di dugg ci diggante famille jàmbur yi te tamit di bañ di féewale ndax àdduna amul solo lépp ko fiy bàyyi leen jox dox dare yoon fii ci MPROD TV jërë ngeen